muy des attaques au cocktail Molotov yoo xam ne dafay dafay viser euh, des voitures euh, de circulation mooy les voitures euh, aftu démb ñu ne fële ca Yaraax am na ñaari nit yu ci ñàkk seen bakkan Euh, mu nekk mbir moo xam na nag actuellement dafa choqué les sénégalais euh, tey ñu réédité waat le même coup au niveau de au niveau de Thiès alors euh, yow milité nga dans la gauche fekke nga ay événement ak bouleversement politique yu bare bari alors est-ce que situation bi ñuy dund tey am na lu ñu ko mën a méngaleel ci suñu histoire politique waaw ci ñu tàmbalee peut-être ci événement yooyu nga xam ne euh, wax nga ko mooy euh, bus yooyu euh, di xaar aussi enquête bu ñu ci jox élément am na ci solo nu mu munti def dañuy condamné voilà ay bu fekkee ne loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci gis seulement dama jàpp ne ministre de l'intérieur peut-être mënoon euh, indi ay éléments d'enquête parce que moom moom moom euh, magistrat la euh, la ñu jot a dégg rek mooy moo yi nga xam ne vraiment bu nu koy prononcer nañ ci am vraiment nañ ci dem ak ak beaucoup d'attention terrorisme ak yu mel noonu nañu def élément enquête yi ñu xam lan la d'abord dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy condamner toute forme de violence kooku moom Sénégal jàmm lañ ci bëggu ak ak dal Euh, mais nañuy moytu lu xew rek ñu ne terrorisme voilà Sénégal quand même euh, li nga xam ne moom la ñu am te mu gën a doon li ñu soxal mooy mooy jàmm ak dal dinay am nag ay ay ay incident ak yu ni mel waaye ñoxoon njaay terrorisme terrorisme terrorisme ña dem ba euh, finalement nit ñi Euh, daal di ragal Sénégal tiit ci Sénégal nañu xaar ba am enquête ba am les éléments ba pare bien sûr ñëpp dañuy condamner euh, lépp luy euh, lépp luy violence bu ni mel mais nañu jox quand même les éléments d'enquête moom magistrat la le ministre de l'intérieur xam na le lien avec la police judiciaire li tax ñuy wax police judiciaire mooy pour am ay éléments d'enquête ensuite soog a ñëw wala informer l'opinion loolu def naa ne aussi ci li nga xam ne moom lay recommander alors euh, booy naan nañu moytu euh, le terme terrorisme euh, est-ce que mën naa tabler si ñaari mbir benn bi euh, mooy l'attractivité de notre pays kóolute bi ñu bi investisseurs yi war a war a wóolu réew mi bu ñuy utiliser terme yooyu di ko galvaudé bu yàggee mën nañu jural dara muy benn wala est-ce que da bokk ci ñi nga xam ne dañoo nekk dans une dans le doute parce que gis naa depuis démb euh, ñuy euh, fournir des théories du complot disant que euh, affaire bi dara amu ci on n'a pas vu de corps gisuñu gisuñu est-ce que nekk di douter. man toujours dama naan il faut toujours booy jiite nga am sérénité sérénité dafa am solo élément d'enquête dafay am solo boo gisee yi yi bu xewee ci ay dëkku tu tugal yi procureur bi day jël temps. def un minimum d'investigation waaye quelques minutes après terrorisme et cetera mooy ni nga wax bu yàggee ñu ne waa mais Sénégal kon jarut ñu fay dem tourisme jarut ñu fay investir nañu xam dañ xaar ba xam effectivement euh, lan la bien que automatiquement dañ koy condamné voilà bu fekkee ne loolu moom am na dañ koy condamné mais lu tax nit ñi aussi di am doute parce que confiance finalement mooy mujj mooy mujj mooy mujj bañ a am diggante citoyens yi parce lu ne annoncé nañ ko fi au fil des mois voilà ay force spéciale ay nangam et cetera bon te jamais ñu gis preuve parce que enquête yi ba tey <laughs> ñu ngi ñu ngi xaar toujours ñu ne ñu bon dinañ def enquête dinañ def enquête voilà mais duñu xam donc yooyu yëpp aussi day dem ba nit ñi confiance sax ci parole publique day dal di doon problème moo tax boo jiitee yu mel nii jiite sécurité après da ngay teey ñu xam les éléments d'enquête ngay informer population bi di ko jox ay faits voilà euh, ba nit ñi xam lan moo xew mais du ñu jóg jóg rek. ne voilà mais euh, ce qui s'est passé hier aussi mun nañ ko assimiler à un acte terroriste criminel parce que cocktail molotov euh, dañ ko considérer comme des armes yoo xam ne qui peuvent qui qui comme une arme qui peut faire mal on balance des cocktails molotov dans un bus deux personnes décèdent la le bus en flamme euh, c'est un acte terroriste il y a on pas d'autre mot. terrorisme quand dafa am dafa am dafa am critères yi tax ñu def ko ku la ne du ab déséquilibré mental par exemple que kan moo on ne sait pas on ne sait naan y a un acte criminel kooku moom c'est clair bu ñuy condamné pour quelque raison que ce soit mais loo xam lan la loo xam ndax c'est un malade mental un déséquilibré wala lu mu munti doon yaa y a plusieurs hypothèses possibles waaye doo jog rek ne terroriste voilà il faut quand même euh, faire preuve de beaucoup de professionalisme boo jiitee lu mel ni sécurité ab réew loolu dafay am solo te aussi euh, ni ma ko waxee comme ca njëlbeen nga aussi dégg nañ fi xam nga surenchère verbale boobu mooy tax ba finalement nit ñi dootuñ am sax confiance ci parole bi nga xam ne moom la nit ñi ñu jiite di am voilà ndax yàgg nañ fi wax ay voilà force spéciale dañuy enquête ba ba tey suñu jonn yàlla tey duñ gis enquête kon vraiment nañuy utiliser les mots avec beaucoup de précaution def les enquêtes qu'il faut ça c'est important jox information la bonne information aux Sénégalais. Alors, mais évidemment tout le monde euh, condamne euh, voilà tout acte de violence ça c'est clair. Alors ces actes de violence interviennent euh, au lendemain euh, de la condamnation de pas pas de l'inculpation euh, de de de de Ousmane Sonko en détention présentement à la prison de de de de Sébikotane. Alors est-ce que vous feriez le lien Euh, entre le mécontentement euh, de ces de ces de ces partisans ak la situation de terreur que l'on vit aujourd'hui c'est ça qui est dangereux justement c'est ça qui est dangereux et c'est cette thèse là qui ne repose sur aucun élément probant euh, qu'il ne faut pas euh, voilà vendre aux Sénégalais parce que quand même euh, comme j'ai dit on ne sait pas la cause ça peut être un malade mental ça peut être un déséquilibré ça peut ça peut donc euh, théorie aussi du du du du complot lay xaw a dal di niróol tant que élément d'enquête probant amul euh, nañuy tey te def vraiment les efforts qu'il faut euh, la science maintenant est là la police sénégalaise a des compétences qu'il faut Euh, voilà mais daal di jékki-jékki rek ñu ne am na bus bu explosé kon ka euh, ñu condamné xëy na parte mais ça quand même euh, je pense que c'est très grave si on doit aller dans ce sens-là d'autant plus que Euh, comme j'ai dit par le passé on a fait des déclarations il y a pas de preuve du ñu gis et cetera loolu baaxul ci réew li baax ci réew mooy ñuy informer le citoyen vrai et juste di bañ a def ay ay suppositions di taqale et cetera non moi je suis pas je je je je condamne ça je ne vois pas de lien du tout entre ce qui s'est passé